sëriñ bi ci ay njàngaleen woote yépp boole leen sharia xaqiq la wax kun muminan wa musliman wa muxsina in rumta sayran lil ilaahi tuxsina wala taxsuna lu ci mën a doon na nga boole imaan ak islaam ak ihsaan su fekkee ne da ngaa bëgg dox jëm ci yàlla kon yoon wi mu doon woote jëm ci yàlla da boole ñett yii door a mën a dem kon nangu wut tajisi jël benn xaaj bàyyi bi ci des ni man fii laa féete ñeneen ñi nañ féete feneen déedéet ba muy wax it ne ku bëgg àgg ci yàlla da ngay dem wuti ab sëriñ leeraloon na boo déggee ci sëriñ bi lim lay defal yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarkil aada kon ci xam-xam ci jaamu yàlla lay wammat nit ñi ak tàggale leen ak ay baax loo xam da koy def te buñ la laajee lu tax nga ne sama baada masalan tey demoon na ba jaamu yàlla nekk aada ci ñenn ñi waaye doonul tut ngëm-ngëm ndax da koy def ba noppi li yàlla waxoon ne inna salaat tanha anil fahsha'i wal munkar yow ñu la ci biir fahsha'i munkar kon daa nekk aada ci yow nga tàmm ku fekk say bàyyi say maam di ko def di ko waaye jeexit dara ci yow sëriñ bi nag dindi fi loolu nit ñi jaamu ngir ne dañuy jaamu yàlla kenn ku nu yëg loolu ci sa xol di ko dund woote boobu la indi woon